Cheikh Sidi moxtar mi nga xam ne moo nekkoon juróom-ñaareelu xalif général des Mourides ci barab bi lañ ko denc ñu tàmbali nag di ko liggéey bañ tegee xeer beeg léegi daanaka ci fukki fan ak juróom lay tollu fondation yi noppi na ba liggéey bi di wéy. fi mu toll fi toll nii takk nañu fondation bi takk nañ semel yi takk poto attente takk seenoo suuf yi commencé nañ poto élévation yi itam ba gars yi commencé nañ dañ ko di kuule poto élévation bi. dimension poto élévation hauteur bi ñun suñ ferraillage mi ngi nekk 5 mètres 35 5 mètres 35 lañ ko def loolu mooy dimension kii poto yi. foog naa tey buñ ñu wàccee daal xam naa li ci des incha allah samedi bu ñu xëyee ak dimanche foog naa poto yi dina jeex ñu mën a dem si euh, arkaar yi rond yeeg yooyu. poto yi bu jugee ba bâtiment bi noppi coulage bi dal plein lay doon boo xam ne du am benn brique. waaw conférence dal bi moom dal plein lañ koy def lépp amul ordi quoi amul brique dal plein lay doon parce que li koy li koy li muy li tege ci kaw couple bi tege ci kaw day xaw a diis soo ci defee brique rek ak euh, diamètre bi ni mu toll nii euh, day indi beneen problème quoi parce que couple bi dafa xaw a rëy. demee foofu day am ay poudre yu mag. yoo xamante ni day am ay poudre quatre-vingt yoo xam ne war nañ cee liggéey ay faire de seize dañ ko war a liggéeyee nga xam ne suñ demee ba foofa it day am ay vaal yoo xamante ni dañ koy def dañ koy ràbb gaa yi kuule ko ak ciment nga xam ne foofu du am brique du am dara mais fer ak béton rek lay am. liggéey bi donte entreprise lañ ko jox ñu koy taxawu saa su ne taalibe yi ba su yàlla sàkk dañuy xëy si jàppale leen ci liggéey bi di ci liggéeyal Cheikh Mamadou Lamine baara waaye di ci liggéeyal Cheikh si Al Mokhtar. mu mel ni tamit ñu gën a waat suñu xel ci liggéey bi moom lu sëñ Tuubaa nangu la amul luñ ci sikk sàkk mooy benn liggéey bu des ci guy mi na ci ñëpp takkuwaat liggéey bi nag ñun ñëpp la seen xol sedd ndax murid buy def dara. te saa yu tëddee di ci gis boppam bu xëyee day delluwaat ci béréb boobee fas yéene nag takk laxasaay gi ñun murid yi duñ ko tikki mukk xanaa béréb bi pare. liggéeyu barab bi nag mi ngi wéy mbooleem jumtukaay yi nga xam ne moo ci war a dem jàppandi na te liggéey bi du taxaw benn yoon ba keroog ñu koy àggale def ko nu mucc ayib.